liggéey bi quatre étapes lañu def ñëk nañu dem seet forage bi parce que problème bi gëna mag ci Kotiari yi moy problème d'accès à l'eau ensuite ñu demoon visiter base u Areski bi nga xamné fofu foofu la entreprise bi doon liggéey légui mu libéré ko bay fi ay locaux euh, loko yoyu nga xam dañu wara set seet naka la commune bi wara a njëriñ njëriñoo loolu enfin ñu xol euh, projet de gare routière bi nga xam mom la mairie bi yor ak projet parking gros porteur donc quatre programmes yoyu def nañ ko te bu ne am nañ ci tontu pour problème ndox mi d'abord man mi maa koy reconnaître parce que xam naa que Kotiari difficulté d'accès à l'eau Nous am bi ñu problème bi aussi xam nañ ko problème ndox Kotiari c'est que forage bi moo débit bu faible ba pare ba léegi ñu alimenter au groupe électrogène te ku ne xam zone yi ni muy groupe électrogène bi mënul fonctionner 24 heures sur 24 suñ ko taalee ba benn waxtu yi il faut ñu arrêté ko mu sedd ensuite ñu mun ko taalaat encore mu approvisionné loolu mooy raison bi nga xam ne waa Kotiari yi du am ndox mu doy bi ñu xoolee loolu nag comme ñoo ngi ànd ak kilifa Senelec yi aussi man leen lii naka lañ ko mun a saafara kilifa Senelec bi mu ne ma gouverneur lii c'est possible option bi mooy ñu def benn transfo ci wetu forage bi ñu connecté forage bi au réseau de la Sénélec comme ça le groupe bi mun dans ce cas 24 heures sur 24 le euh, forage bi fonctionne fonctionner et ensuite donc mun permettre nous amener il y a le def yemuñu qui entreprise bi fi doon liguey gasoon na forage ci base de Gérout et à Areski pare nañu lobby, bi jàll nañu côté Goudiri donc a naa ak seen kilifa jox nañu accord fii ak semaine dinañu pare kayit yépp comme ça ñu rétrocéder forage u Areski bi à la SOGES mu mun a yokk capacité fourniture ndox mi dëkk bi am ndox jigéen ñi am ndox bu doy problème ndox mi nekk un vieux souvenir concernant gare routière bi d'accord naa mais fi ma maire bi woon service yi xool nañ ko du place bu baax te bima ko waxee Ismaïla monsieur le maire rek mu nangu ma ne ko nag am nga benen possibilité bo xam ne la sax d'ailleurs fi base Areski bi nekkon buñ ko xolé ak Ageroute ba muna am solution ñu rétrocéder ko commune bi au lieu nga koy def lenen comme am nga déjà bitim ci souf nga def ko gare routière comme ça dëkk bi am fu auto yi di dugg di génn mu générer la aussi lu mu tuuti tuuti ay recettes ci sa donc mairie également bâtiment yi fay Areskid di bay ñun administration soxlawuñu ko wax naa préfet par pas la peine sous préfet c'est la peine nañ ko jox mairie nga defaraat ko soo ko defaraatee ba pare nga am centre yi ki nga mun a dalal say gan loolu yëpp dafay yokk véritablement suñu commune de Kotiari yi bi ci des yéen ñii seede ngeen que l'État bi croisé les bras pour Kotiari bénéficier de 20 km de linéaire pour yok réseau bi ñun ñep tek nañ ci entreprise entreprise bangi gas tranché yi suñu paré rek donc moy installer tuyaux yi que yeb dina yok véritablement capacité euh, fourniture d'eau bi ci commune bi en tout cas il y bu ñetti programme yoyu. D'ajalo. Euh, fii ak quelque temps dootuñu wax problème ndox fii ci Kotiari te moo nekkoon seen problème bu gën a mag.